que ni Poutine voilà c'est difficile ah. c'est difficile ku ci ku ci bi dañ koy def ci ay avion mu traversé ñëw fii daawaaj Sénégal fu affaire yi di jaar. bateau port yi. ah ci port yi. parce que parce que am na am na am na benn position boo xam ne bu ko européens yi taxawee. Mhm. ñun duñ jot dara. bloqué say il va falloir passer par balaa ngay balaa ngay def dara. Mhm. parce que loolu moom il faut ñu kii je pense que stratégiquement Poutine bandi la mu teg président Macky Sall nii teg kële nële. il joue avec àddina bi. il a mm-hmm. toujours fait ça. master la ci loolu. il joue avec ça ah. c'est bu mënee dem bay dugg ci ay élections américaines di ko di ko di ko jaxase. ah sax fële. voilà final ga. moytul sax donc je, pense que. Euh, aussi aussi il faut ñu il faut il faut ñu comprendre que ni euh, au au delà wu affaire blé affaire yi daf saa yi dafa gaz. Mm. te gaz boobu nit dañ ko soxla xam nga di nga di nga di nga. def ay sanctions sanctions yi gën a tar pour yow que ki nga ko teg. Hmm. loolu moom moo dal quand même européens yi parce que tout simplement li ñu bëgg Ukraine def ko Poutine bu ko defee il dafay vulnérable donc il est obligé moom aussi li mu mën a def mu def ko. donc il faut ku nekk dox li nga war a dox mais Poutine mii. sonn na <laughs> waaw Poutine mii il est il est il bon président Macky Sall dem foofu wax ak moom li ñu waxante bu amee répercussion si ñun tant mieux mais. pour man c'est très dafa yomb trop ñu foog ni bu président Macky Sall demee foofu wax ak Poutine mu ne ok léegi dinaa libérer blé bi blé bi day egg si Sénégal dafa am ay intermédiaires. Mm. les Européens là notamment la France nga foog ni ñoom dañuy croiser seen kii rek Russie ñëw war a deal ak Afrique directement ñoom ñu génn taxaw di seetaan mais yéen tam gars yi ban ban na ngeen nekk. merci ban na ngeen nekk yéen tam on peut pas mënuñu deal ak dëkk yi yëpp ay France yooyu seen bët dugg ci. c'est dommage que Der n'écoute pas la chronique du vendredi matin. xam nga voilà exactement quoi c'est bon je sais pas xaw ma lan la mais <laughs> mais ñun mënuñu deal ak Poutine comme ça sans pour autant France lu ñu fa def xam na ko. mais oui. stratégie day def le 8 juin day dem Turquie. Mm. par rapport à ak transition. waaw en fait. voilà c'est évident parce que xam nga xam nga xam nga xam nga. c'est euh, évident dafa dañu nekk ci ci monde boo xam ne. ñi nga xam ne bu ay Chine ay Russie ay États-Unis stratégiquement ku ne li la arrangé ngay def. on est Chine bu Chine bu waree ànd ak Russie pour wàññi doole Amérique ak Europe du ñu hésiter. stratégiquement te ñooñu après finalement l' Afrique du sax mooy seen priorité. parce que aussi il faut ñu comprendre nan la nan la Russie duggee Afrique. Russie fan la dugg ci Afrique bi mu bi mu demee Mali est-ce que Russie vraiment dafa dugg Mali walla yëfu bandi la fay def xam nga dugg dafa dugg sur le plan économique wala dafa dugg ak ay mercenaires. voilà non non mais quand on xam nga bu ñu convoqué non non quand on convoque bu ñuy wax affaire affaire mercenaire ça rime avec lu clandestin ah y a rien de de d'officiel quoi xam nga donc dañu Russie dugg nañu kii nan lañ fa duggee ak ay armes lañ fa duggee c'est des clandestins c'est pas mais économiquement pourquoi Russie mënul dugg si suñu dëkk yi ni mu fi dugg parce que am na balaa ngay jàll jógee Afrique euh, Russie pour dal Afrique mais dafa am fooy jaar te loolu daf ñuy ramener encore si dépendance bi ñu am si ay ay France ay affaires yi fi def ak ñoom dara loo xam ne européens yëguñu ko tey ji ni européens du ñuy nangu ñu utiliser Afrique pour pour di leen gën a néewal doole. loolu moom mooy dëgg te européens ñoo gën a présent ici en Afrique. donc tey jii nii ñun bu ñu nee suñu yoon nekkul ci ci ci xeexu kii bi mais ban posture boobu rek la mën a am. Ouais, ça c'est hmm. naïf. voilà sunu non sunu sunu non sunu yoon nekk si mooy que aujourd'hui même européens yi le fait que ñun ñu am benn position bu neutre bopp mais ça les arrange affaire bi Poutine mi ngi souffrir Europe mi ngi souffrir te Europe peut-être am nañu toll nañ foo xam ne mënuñu ba lâcher Ukraine mais buñ bu doon démb doon tey duñ ci dugg parce que bu dee parce que adhésion wu Ukraine rek ci Union européenne moom moo indi coow li yëpp mais jaru ko. parce que il faut ñu comprendre ko aussi euh, gars yi seen agenda la ñu yor ah, ak seen i intérêt. oui ay seen intérêt ak seen agenda dëkk yi ñuy wax ni dañu am souveraineté mais ay dictateurs ñoo fa ne ah aussi. parce que boo waxee ay ay Russie affaire yooyu oui ils sont souverains mais peut-être que la population souffre. oui ban genre ban genre état la aussi. est-ce qu'ils sont aussi libre que nous. est-ce que di nga dem euh, Russie ni toog ci télé bi am. nooy def ni waaw wax amu fa. Euh, yéen ñi nga xam ne yéen ñi combattre libéral ah, amul jàkkaarloo ah amul jàkkaarloo waaw on a on a des acquis il faut que aussi am na dëkk yoo xam ne dañuy souffrir te duñu wax Russie y a beaucoup de gens qui souffrent ñaata russe ñoom ñooy souffrir ci guerre bi tu na pas accès à ce pays-là tu n'as pas accès à la vraie information mais là peut-être les populations souffrent est-ce est-ce que les populations ne sont pas en train de euh, souffrir si déliru euh, Poutine. Est-ce que est-ce que Poutine ce que le Koweït là. est-ce que euh, ah, Poutine est-ce que ci parcours il n'a pas il veut pas marquer addina bi moom personnellement. Hmm. am na benn moment boo xam ne aussi il faut loolu yëpp ñu ñu ñu ñu ñaata at Poutine mi ngi foofu. lan moo tax a jóg lan mooy histoire Union soviétique ak am États-Unis bu ñu ko dindee ci loolu mais da ngeen di nax guerre froide mais ennemi yooyu ñi ngi taxaw ba léegi et ñun ñëpp ñoo nekk ci digg bi et ñooñu bu ñuy def ay Poutine buy def loolu da nga foog day day faale ay Afrique Afrique mais xalaatu ko sax donc bu mu nee utiliser Afrique ci digg bi pour wane ni africains yi laa gën a jege sax fu mu ne ni ñoom bu ñu ñëwee damay toog ak moom ñi yéen mais pour man ci côté communique mais bandi la affaire saay saay lay def gars mooy que ñii laa gën a respecté sax que yéen en en réalité. loolu lay loolu lay def ni parce que tey jii nii fii jamono toll sur le plan sécuritaire et tout ça mu mu def lii c'est-à-dire que ça veut tout dire. Mm. mooy que il est en train d'utiliser ces images pour dire que aujourd'hui africain yi laa gën a considérer que yéen. Mm. mais c'est c'est une bataille stratégique ah. te loolu mais aujourd'hui en en termes concrets est-ce que est-ce que Poutine est en mesure de nous aider si ay blé. et comment il va procéder. parce que les les et les les urgences benn la mais la faisabilité c'est autre chose ah. guerre bi bu demaatee yeneen 3 mois 4 mois mais ñëpp ci souffrir ah. et on n'a pas le temps j'aime bien qu'on qu'on que ñuy prôner discours alimentaire nous tous on ça mais parlons de maintenant. Hmm. naaw. Hmm. ak fii ak 12 ku ko fi mënti wax ci plateau bi tu rêves fii ak 12 mois loolu mënuñu ko def. suñu jikko yi papi kaay mu wax la dara gis nga ñu naan ah, pourquoi munuñu changer pain mënuñu tous ces tout tous ces pays là yoo xam ne dañu dem ci kanam les peuples yi mm. les peuples ont souffert waaw ils ont sacrifié. ils se sont sacrifiés te lu si gën a bëri ay dictateurs lañu mooy que c'est des gens qui se réveillent qui disent que à partir de maintenant lii du dugg ci dëkk bi lii ngeen di lekk boo ko defee Sénégal lan mooy am est-ce que nous on est prêt à faire ces sacrifices est-ce qu'on est prêt à changer suñu régime alimentaire xam nga aujourd'hui on est obligé non non non Papis dafa ndànk rek xam nga tam benn dafa am benn responsabilité boo xam ne ñun ñii suñu bopp il faut ñu convoquer ko doo am sa ay doom nga bëgg ñu yow tu n'es pas prêt à que ce que ñu lekk sa liir bu ndaw bi bu nekk xale yow convoqué woo personnellement le fekk nga commencé ko tàggat si la leneen loo xam ne ci Afrique la jóge nekk fii Dakar di dem ay ay boulangerie euh, yu pour ne pas faire de pub jënd pain bi gën a neex. bu rang bi kii. bi nga bëgg sa doom bi màgg xoola nekk nekk liir màgg ba am vingt ans. <laughs> tàmm benn goût ak benn ki nga xëy suba avec un beau discours. naan wooy ndekki fondé léegi kii non tey jii tey jii parce que des fois dañuy yenn sax dañuy yenn sax suñu tous les prétendants là c'est ce qu'ils veulent qui à nous diriger dañ leen yenn loo xam ne wala ñu yenn seen bopp loo xam ne ñoom àttanuñ ko hmm. est-ce que xam nañu exactement ce que ça implique <laughs> tey jii tey jii est-ce que un père de famille comme Papis peut se réveiller pour dire que moi je tey jii nii sama doom bi dama bëgg qu'il commence à consommer. non wala rek ñu yeewu. voilà bu ñu tere ceebu jën. non waaw ceeb voilà exactement par exemple quoi. voilà non parce que suñu yaram pareegul pour di lekk ñu bu naan tous les midi. waaw attends non dëgg la. norme sénégalaise la norme 001 bu Ami Blé. wa non ba léegi kenn mos depuis soixante seize ou soixante dix ba léegi kenn mënu ko appliquer. xam nga première norme ñan ñooy lekk ñan ñooy lekk norme ISN. Euh, Charles Charles xam nga ñan ñooy lekk li nga xam ne moo fi nekk déglu ma rek ñu si gën a bëri ñi ko yorul la moo fi sës mais ñun ñii ñëpp tant que nous sommes lii suñu suñu buñ tey jii buñ bëggoon changé suñu bëggoon changé kii dañuy feebar. par exemple tu dis que le par exemple on va tomber malade. am na am na solution par exemple. par exemple la solution de Papis. par na am na solution. dañuy dañuy defar dañuy lekk léegi mburu mburu dugub par exemple pain dugub. mais amoon na fi ay temps Papis. yow foo nekkoon ñu ne léegi. mooy daawoon nekk pain riche waaw mais pain riche lañ ko doon woowee. jaay ko soixante quinze parce que ñoo koy béy suñu euh, le prix peut jouer le prix peut jouer. Papis yow mënoo lekk vingt cinq ans ba non c'est pas lekk non c'est pas en douze mois mënoo lekk vingt cinq ans non